ba tey moom président Macky Sall moom mu waroon a bokk ci li nga xamante ni si nii euh, moom moo di ab euh, bu ñu ko mën a tuddee euh, conférence wala mu waroon a participer ci benn forum foofee ca université bu Columbia moom ginnaaw ab pétition boo xamante ni si nii ab doomu Sénégal daal na koy lancé ba tax mbir moom ñu daal di ko ci roccuwaat nànk ba ñi nga xam ne ñoo sababoon lu ñu mel daal ko ci génnewaat ba dootuñu mën a bokk du ci mën a nekk li nga xam ne moo di ab orateur. loolu de li jàngat bi ñu ci njëkk a def mooy dafay wane Macky Sall sortem c'est-à-dire ni mu génnee dëkk bi. xam nga Alioune Badara am na loo xamante ne boo ko génnee ci dëkk. Mhm. je pense que sa carrière internationale du yombati. Abdou Diouf bi muy pare Sénégal après dañ ko jox francophonie. Mhm. mu jël francophonie ba doyal dafay at yu bëri ay mandat am jeex mu dem toog jàpp ñàmburam. Mhm. nga gis ne Abdoulaye Wade bi mu paree dem na toog France à un moment donné mu ñibbi ci Sénégal toog fi da ngay fàttali sa Abdoulaye Wade mi ngi ci dëkk bi. kenn doxul ba ne daje na ak Wade ci marché kenn doxul ba ne Wade daa ngi fii peut-être là on comprend que tamit ak agent bu avancé. Mhm. Euh, mën na mën na mën na justifier loolu lépp. mais Macky Sall dafa bàyyi réew mi ci at boo xamante ne ba fa ba fa Abdoulaye Wade tollee woon jotagul woon ci réew mi donc moom bi muy bàyyi mën nañu il est relativement jeune ci un chef de l'État rawatina fii ci Afrique mais mu bàyyi ko ci anam boo xam ne tey jii bëgg ubbi benn carrière internationale te internationale boobu dafay jàkkaarloo ak diaspora te diaspora doomu réew mi ñoo fa nekk. Mhm. léegi ñu fa nekk nag tey jii dëkk yi ñu nekk doon ay dëkk yoo xam ne dañu gëm wàllum droit de l'homme ak démocratie ak yu ni mel te ñëpp xam nañ ne Macky Sall balaa mu fee jóge wàllum droit de l'homme ak démocratie daf koo salfaañe ndaw si nga xamante ne moo jiite pétition bi mhm. dafa def ay tiré donc ne bu njëkk bi nañu indi lay explication mbaa mu wax ci kii ngeen bëgg a dalal fii de ci forum ci ci conférence bi nga xam ne conférence boo xam ne chaque année ñu ciy dalal chaque année dañuy seet benn nit personnalité bu influente wala koo xam ne kii jut kuñ jox gëdd la ci àddina bi mu ñëw bokk ci ñi koy modéré wala mu bokk ci jataay bi. Hmm. bi pa ñu tànnoon Macky Sall conférence baa ngi war a am le vingt quatre vingt cinq ou vingt cinq vingt six octobre. waaw léegi nag ñu jëloon turu Macky Sall boole ko ci liste yi naka lañ ko gis rek daal def benn pétition ne dañoo soxla lu toll ci cinq cent nit ñoo xam ne dañ koy signé bëgg ne Macky Sall mi bu fi ñëw. laataa moo sori huit cent et quelques personnes signé nañ ko ba lu ko ëpp sax di dem ne Macky Sall mi kat bu mu ñëw soxlawuñu ko ci lii parce que dafa am lu mu def ñu ne lu mu def ñu def ci note bi ne Macky Sall mii jël na lu tollu ci deux mille et quelques per lu près de deux mille personnes yoo xam ne dafa leen a tëjoon ci kaso bi su tuddee leen ay détenus politiques. Hmm. ñu ne waaw ñu demaat ci beneen ñu ne njiitu réew la boo xamante ne kat balaa moo génne dafa def amnistie maanaam effacé si ginnaawam daal di jàll. ñu ne waaw ñu ne beneen bi ci toppaat mën nañ leen njiitu réew la boo xamante ne kat ki ko wutu jamono ji mi ngi koy tuumaal ne ko da ngaa falsifier ay chiffres yoo xam ne dafa concerner économie dëkk bi maanaam danga nga génne ay kayit yoo xam ne du dëgg te mu jëm ci wàllum koom-koomu dëkk bi léegi bi ñu ko defee Euh, ñi nga xam ne ñooy organisateurs yi daal di ci teg ak diir daal di leen di tontu. ni ki mm-hmm. démba ne leen ah wax ngeen dëgg Macky Sall mi kat retiré nañ ko ci liste ñi nga xam ne euh, dañoo waroon a ñëw bokk ci boobule conférence waaye dinañ ubbi ay waxtaan xool naka la ñuy def parce que ñun dañu bëgg a lu jëm ci dialogue ak yu ni mel. mu doon pour man benn ndam boo xam ne ñii nga xam ne dañu yàgg jiiñ Macky Sall ne dañ ko war a àtte Macky Sall warul mën a am benn taxawaay bi am nañ ndam ci kaw kii di président Macky Sall su ma nee am nañ ndam ci kaw kii biir président Macky Sall parce que dañ doon yóotu dara am luñ doon wut def pression ba am ko. xam nga foofu li muy wane mooy bitim réew rawatina États-Unis bokkul ak Sénégal. États-Unis bokkul ak Sénégal foofu dañoo gëm lu jëm ci wàllum démocratie ak euh, liberté d'expression ak yooyu noonu et puis seen xewteef yooyu nga xam ne dañ koy amal at bu yàlla sàkk du ñu bëgg benn nit di leen koy yàqal wala benn chef de l'État te li tax mu nar a compliqué ci Macky Sall mooy bu ñu moytu dafay def tâche d'huile maanaam am na ci université bu Columbia bi bu subaa dina amaat beneen université bu ko soxlawaat étudiants yi ak ñeneen defaat pression ñu ne déet Macky bul ñëwaat donc finalement boo moytu ci yu kawe yi rek lay mën foo xamante ne da nga naan fii kat. ah ay kilifa ñoo fi nekk wala ay rencontre la wala ay ndajeeg yoo xamante ne tey jii euh, militants yi wala euh, yenn ci Sénégal nekk si diaspora bi mënuñoo jot si moom mais benn début la boo xam ne bu moytuwul carrière international la mun na fi commencer di jël ndox parce que ñu bëri dootuñu ko may jàmm surtout bu ñu ñamee ne def nañ ko mu am réussite. Mm-hmm. loolu moo tax ma jàpp ne bokk na ci président yi nga xam te malheureusement fii ci Sénégal génninam euh, doy na waar doy waar goo xam ne daf koy topp. Euh, loolu nag moom moo ko def parce que ci note bi ñu koy bindal ci biir pétition bind nañ ci ne moom moo fi doon président moom tamit dafa dàq élection présidentielle naroon dugal dugg bi dëkk bi ci guuta il a fallu que euh, conseil constitutionnel jël seen ay responsabilité organiser ay mu daal di doog mën a abale donc dafa bàyyi benn passé boo xamante ne dimbaliwu ko te passé boobu malheureusement munu ko effacer yaa ngi doon dégg récemment fan yële passé. mu am benn dame boo xamante ne ci avion bi la ko fekk. Euh, mu am échange yu fa am ba nga gis après affaire bi finalement presse bi daal di koy relayer nga comprendre que ni kon loolu benn junjul so tey nga dégg benn conférence bu subaa di nga déggaat leneen ak leneen ak leneen donc pression bi jàpp naa dina bokk ci li ko gën a sonal tey ku ko bëgg a sonal ci pression da ngay am lootee xam nga loolu mooy affaire bi. Mhm. da nga ñëw ngeen ne baa ngi nii ngeen ne détenu yaa ngi nii dafa dàq élection bi yow dangay am ci loo téye loo xamante ne moo lay may euh, nga mën a xeex kii di président Macky Sall et malheureusement euh, moo tax ma am yaakaar ne carrière internationale am en tout cas du yomb dara ci moom. d' accord carrière internationale am du yomb donc mu nekk koo xamante ni si bi mu fiy jógee ba jamono ji sax euh, Sénégalais yu bëri loo ci wax nañ ko topp ci côté euh, justice nañ ko mhm. tëjëk yu ni mel euh, donc mu nekk koo xamante ni si xëy na dégg nañ premier ministre aussi mu wax ko que ñoom ay ministre yu ni mel ay haute cour de moo la mën a àtte te amu fi donc peut-être au niveau international donc lii ci côté justice laka la mën a jouer ci moom ci président Macky Sall niveau international non côté justice kay fi ñu li muy xaar mooy haute cour de justice. Mhm. parce que xam nga bu ñu tegee assemblée ba noppi. Mhm. député dañu war a teg li ñu wax haute cour de justice. Mhm. haute cour de justice mooy la juridiction habilitée à juger les anciens présidents et ou bien ministre de la République ñooñu dañuy bénéficier lu ñuy wax privilège de juridiction léegi privilège de juridiction boobu moo waral tey jii mënoo leen a atte ci tribunaux yi nga xam ne moom ngay atte euh, nit ñu ñu def yenn yenn délits yi nga xamante ne wala yenn infraction yi léegi haute cour de justice boobu ñu ko mën a àttee tegaguñ ko fi d'accord parce que ñoom bi ñu fi nekkee teguñ ko woon léegi il faut que ñoom assemblée bu bees ba noppi nag su boobaa nag ñu daal teg benn commission d'instruction euh, teg magistrat bi nga xam ne moo nekk cour suprême mu ñëw jiite haute cour boobu euh, mm-hmm. procureur général daal di dugg ci biir avocat général daal di dugg ci biir ñoom ñëpp ñu daal di constituer loolu teg euh, commission d'instruction bi mu am juróom-ñetti député titulaire juróom-ñetti suppléant daal di ñëw ñu teg haute cour bi léegi député yooyu di ci bokk nag ñoom dafa am loo xam ne duñ ko duñ ko duñ ko mën a am mooy bu ñuy voté mhm. bu ñuy voté mise en accusation yooyu ñoom duñ ko ci duñ duñ ci mën a voté waaye tamit mën a bokk ci débat yi donc haute cour boobu dafa am beneen bindin boo xamante ne moom lañ koy organiser moom lañ koy tënkee euh, su ko defee ñu mën cee àtte kii di président de la république wala yeneen ministre yi ngay dégg ñoom Amadou Ba ñoom Abdoulaye Daouda Diallo keneen ak keneen ak keneen ñoom ñëpp ëtt boobu lañ leen mën a àttee moo tax ñu ne traque bi dëgg dëgg dëgg commencé gul fekk amuñu haute cour de justice boobu léegi juridiction boobu nag tant que ko parce que foofu la mën a defee mise en accusation bi ñu mën a defal Macky Sall pour haute trahison mhm. donc tant que fi tey bu duggoon si dëkk fi ñu toll mënuñu koo jàpp xanaa ñu fay ko borom maanaam mu ñëw dugg Mermoz ñu barricadé ko indi takk der ñu barricadé kër gi ne ko toogal xaar doo fi génn doole parce que bi mu ko defee Ousmane Sonko euh, beaucoup de juristes dañoo jógoon ñu ne ah indi leen kayit bi wane ne kat dañ ko assigné à résidence surveillée wala nga indi kayit gi wane ne kat warul mën a génn këram ñu ne non non parce que raison d' état la état moo am pour bloquer ko donc tey ji moom xam na ne loolu bu fekkoonte ne loolu dafa ko woon Macky Sall mën na fee dugg def campagne am génnaat dem ne bu ñu ma soxlaa nañ ma woo mais fi ñu toll nii comme am na fi benn taxawaay bu mu fi defoon boo xamante ne buñ ko ko fayoon ëllëg sa mhm. mu ñëw ñu jàpp ko dugal ñu jàpp ko duñ ko tëj mais ñu barricade këram mbaa mu ñëw retiré passeport am téye ko ne ko mënoo génne dëkk bi su boobaa amul fu mu koy jooytoo parce que bu waxee dañu naan ah attention defoon nga ko fi Ousmane Sonko kat téye ko fi euh, barricade këram mënul génn mënul dukk ku nekk di wax ay soxnaam mënuñu génn kenn mënul génn ku nekk yuux faalewu ñu leen. loolu moo tax mu am yaakaar ne tey jii bis bu fi duggoon balaa haute cour de justice di ñu ko fi teg mun na am jafe-jafe ak yoon maintenant euh, haute cour de justice nag euh, am na ñu bëri ñu ne haute trahison moom xam nga li tax euh, yomb muccam du yomb ci dëkk bi mooy. Mhm. haute trahison ba tey amul benn benn benn benn benn définition bu exacte boo xamante ne def nañ ko ñoom bu la neexee ñu jël le fait que sax président Macky Sall daal di dàq election yi te ñëpp jàpp te mu am ñetti mort. du le fait mu jàppaloo rek ak yooyu rek ñu jël mbir moom jëm ko qualifier de haute trahison yóbbu ko def mise en accusation yi député yi voté ko ñu ne acca nañ commencé topp Macky Sall ci mun dara mm-hmm. ñu ne ko yow parce que da ngaa trahir nation bi la faloon yooyu ak yooyu ak yooyu ba ci chiffres yi nga xamante ne dañ ne doo koo falsifier mm-hmm. parce que boo ne da nga waat ne da ngay respecter et faire la constitution di nga défendre intérêt dëkk bi yooyu yëpp nga wax ko ñu dem ba ci biir ñu gis ne yow mi kat am nga taxawaay boo xamante ne waxoo dëgg sa waa askan mën nañ la considérer comme quelqu'un boo xam ne da ngaa sa nation moo tax ma ne la pour ñu am lu ñu teg ci ay loxoom wala pour ñu lu ñu ko mën a accuser de haute trahison je pense bien que du lu ñu rafle moo tax moom xam na loolu moo tax man ba léegi damay gëm ne euh, waajagul sax bay ñëw Sénégal mm-hmm. sama gis-gis la nag je peux ma tromper mais man dama gëm ne ak fi réew mi toll. Ah. Macky Sall dugg ci réew mi bu <laughs> moom déjà déjà Alioune Badara Macky Sall ñi fi bàyyi. Uh-huh. boo gisee ay ministre mënuñoo génn quoi xam nga ministre Macky Sall mënuñoo génn. Uh-huh. nga gis ay ministre mënuñoo génn ay jegeñaale mënuñoo génn ñi ngeen bloqué si dëkk mais moom bu fi duggee tey jii nga ne léegi Macky Sall boobu xam nga bu fi duggee tey jii. Uh-huh. ñaar lay jàkkaar lool dina jàkkaarloo régime bi. waaye dina jàkkaarloo tamit ay terroristes am xam nga Macky dafa amoon ay terroristes dafa amoon ay forces spéciales loolu moo tax mu métti ci moom xam nga bu doon dafay ñëw jàkkaarloo ak régime bi dina tane parce que da régime bi kat buñ bu ñu ko accusé wul euh, jàpp guñ ko tëjaguñ ko du compliqué mais bu ñëwee war a jàkkaarloo ay terroriste su ma nee terroriste am entre guillemets mooy dafa am doomu Sénégal yoo xam ne Macky Sall moo na ñëw ñii ay terroriste lañ ñii dañoo bëggoon taal centralu Sénélec bi mm-hmm. ñii dañoo bëggoon taal ay kër ñii dañoo bëggoon ñii dañoo bëggoon ñii dañoo bëggoon salfaañe dëkk bi ñooñu mu tuddee leen ay terroriste ñu am dossier ñu leen di toppee euh, participation à une manifestation non autorisée association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste ñu leen koy toppee ñoom ñëpp boo demee ci chef d'accusation yi ñu teg seen kaw da ko fay fekk chef d'inculpation yi waaye léegi ñooñu tey jii ñu bàyyi la ñoom ñu toog seen ay kër moom mu considéré ay terroristes mais bu ñu war a jàkkaarloog terroriste yooyu nu am na ñoom ne ay force spéciale lañu woon bu ñëwee Macky war a jàppaaroo ay force spéciale nu mu leen def bu ñëwee war a jàppaaroo ay jàkkaarloo ak ay commando am nu mu leen di def bu ñuy war a jàkkaarloo ak ay force occulte nu mu leen di def moo tax ma ne moom. Hmm. bu ñëwee ñi mu ñi mu ñi mu nar a gën a amal jafe-jafe du état bi waaye force am yooyu nga xamante ni moom mooy leen accusé woon tëj leen ci kaso bi ñenn ñi am fa ay jafe-jafe bu ñu génnee ba léegi ñenn ñi torturer leen ci kaso bi ñu génne jàkkaarloo Macky Sall ñu naan Macky mi ngi jaar ci mbeddu marché ngelaw bi Macky suba dina dem Thiaroye Macky Sall suba dina dem marché sàngam ak sàngam te Macky Sall amatul GIGN amatul BIP. amatul police amatul gendarmerie amatul euh, justice amatul dara ci ginnaawam. xam nga ñun ñoo koy topp ay nervi te nervi mi ku ci dóor mu fay loolu moo tax ma jàpp ne moom bu toogee wéet ak conscience am xam ne fii bu fi duggee tamit ah du yomb ci moom de buñ ko bàyyee ak ñooñu nga xam ne moom la doon jiñ terroriste rek nga xam ne tey jii eh, da ngay gis yenn saa ay témoignages ay mag di benn vieux di wax bay jooy. Mhm. ci doomam bu ñu faat te Macky Sall la interpellé directement accusé Macky Sall directement. ñooñu tey ji nga dégg ñu leen Macky Sall la ngi meeting fële est-ce que dinañ ko bàyyi mu meeting ak jàmm ak salaam est-ce que dina am jàmm bu duggaatee fii ci réew mi ah yaakaaruma ko de parce que ni ma gisee mbir mi nu mu demee ak fi réew mi toll nii je ne pense pas mu dellu si fii. ñu bàyyi ko mi pavander ou bien dans dans les rues comme ça loolu gëw ma ko man. d'accord merci beaucoup Moustapha c'est important mu jëmoon ci mbirum. Euh, président Macky Sall ak li nga xamante ni moom moo di forum ba mu waroon a teewee foofee ci université bu Columbia ab euh, pétition bu ab sénégalais daal di euh, débuté di ñaan ke ni ñu bañ ko daal boole ci yooyu les orateur tax ñu daal ko ci sepp waat nank moom président boobee ba tax wala sax ki fi nekkoon njiite réewum Sénégal di Macky Sall ba tax du mën a daal di participer ci mbir moomee beneen mbir bu ñuy waxaat fii ci réewum Sénégal wàccaayu li nga xamante moo di yi élection bi nga xamante ni war nañ ko daal di amal ndiki demee foofee ca Dakar Arena ca Diamniadio mu nekk loo xamante ni Moustapha ah, moom moo ko annoncé woon euh, gisal Pastef loolu di Ousmane Sonko euh, que ni ma ngay sàkku ci képp koo xamante ni si ni euh, bokk na ci partem boobee di militant na ko fa daal di fekk si ak une participation boo xamante ni si ni Moustapha 1000 francs lay doon laata ñu dugg sax ci mbir mi de temps ñu gis que ni Sénégalais yi jël nañ ko trop au sérieux donte sax moom mi ngi wéy di leen wax kenn fekk si leen ma fi nga xam moom moo di jam ñaajo àndaa leen tamit 1000 francs terewul ba tey ñoom ñu ngi koy déggal di ko wéy loolu lu muy signifié aussi waaw xam nga Badara am politique dafa dafa am loo xamante ne nit ñi duñ ko dañ koy war di duñ ko dañ ko war di bàyyi xel mooy da ngay jël chaque formation politique a des forces et des faiblesses mhm. Pastef c'est une formation politique boo xamante ne ay force am fi mu nekk mooy sa capacité à mobiliser dafa